boucher bi parce que lool travail bu ma commencé la lu ma doon may xaalis la di ma teddal moo tax foog boo nee boucher daf may neex ma fier ci ketchup bi tamit waaw temps la nii ketchup bi fi mu nekk nii la mais chaque jour man sama démb laay gën a préféré que tey suba lu ma ta la waa neen l'ambianceur mo moo ëmb lépp njaxas bi laay préféré Thénéville Téné traversé Téné traversé mooy buy dem ci bureau yooy yooyu non Téné traditionnel dafa nice ci man dafa maa jàpp de boobu moo ma de. Snap parce que aw ma sax TikTok di moo Staroise mooy sama turu Snap bi moo Staroise mooy moo Staroise mooy moo star planétaire lépp la ëmb. charret moo gën a yiw moo gën a baax. xel moo ëpp solo lépp de waaye yenn saa yi doole am na solo de hmm. nee ko pronostic parce que ñoom ñaar ñëpp ku ci ne am na loo def ci làmp kon dañuy ñoom ñaar ñëpp ku ci ne rek daa war a moytu sa borom non guy gi laa faral nag bu faral di am guy gi laay faral Pape Gueye moo ëppoon doole Alaaji Mbay moo gënoon dis gan Pape Gueye bi ma koy daan mën na yëy Alaaji Mbay moo moo ëpp Bombardier ngan di nit la ba pare xees pecc mais mbër bu xees mbër bu xeesee moom ci suuf day oyof moo tax ma jaar ko ci suuf pula yi daa ute nag am na yu bon yu ñëw ci réew mi fi mu ne nii am na yoo xam ne moom kenn xamul fu dañ koy gazé xaw ma pula moo tax dama ciy def attention mais fiche moom c'est naturel waaw surtout yabooy bi moo gën a saf duma naan café du ma naan ataaya du ma naan café man du ma naan café de café Touba naan café Touba tàng naa laa gën a préféré nag mu gën a saf damay laaj ay set neenu baxal ak euh, pomme de terre téeméer ah, ak spaghetti trois cent ak ñetti neenu omelette ak libre mburu mayonnaise deux cent mayonnaise bi lu mu bari rek doyul loolu laay laaj mayonnaise sama dàqal ketchup waaw mayonnaise ci ci ci ci lekk non mayonnaise sama ko dàqal kara booj laay tànn kara sama frère de valeur sama mon cœur kara sama xarit la waaw Sadio sama xarit la mais Kara sama xarit la Kara nag laay tàmm da ngay jël ñaar ñu bokk parce que ah da ngay jël ñaari attaquant xam nga ne Sadio Mané attaquant boo teg ci àdduna bi fi ne nii moom laay jël waaye défenseur boo teg ci àdduna bi Kara laay jël ah parfum xëy neex ah, lii danaa mënal dara xool heure bi di ko bàyyi te mën xëy neex <laughs> yow <laughs> jamono Kara bi <laughs> sëñ sëñ Modou Kara moo ko tuddee de ah te bu njëkk bi tamit jig na ma nag neex na ma waaye jamono Kara laay préféré ndax sama sëriñ ma ko tuddee sëñ Modou Kara jamono Kara laay jël de. <laughs> Mboto daax signature contrat. non signature contrat ko daax fuuf parce que mooy jaay li nga bëgg. mbaxalu Saalum. bu am yàpp nag ak ñoom yoo ko yooyu noonu bu niin bat. kem bi amna na njëriñ ci benn côté waaye saaf bi tamit lu baax la waaye kem bi yenn saa am na njëriñ pologami pologa polagami wuru de xamoo looy xamoo fooy mujj mono bi mono bi daal jaaxaanaay moo gën a moo gën a kii daal yamamaay akara laa gën a bëgg nag bu am kaani ak mayonnaise New York City lay jël New York day morom fenn man bu ma amee noo bëggee sa États-Unis fii moom gën a États-Unis Sénégal su ma amee koppar fii laay toog tekki fii moo ma gënal barki alxuraan fii daa neex non bëri doon mu nguuru bëri doon daa bëri ay ay danger trop li dul fi sa bi daal moo gën a wóor daal waaw supp laay jël moo gën a oyof te dugg sa yax yooyu noonu day dugg ci yax yi def ay bagage travailler ko mais cere dafa gaaw a suurloo nit ba pare dafa diis doo nelaw comme guerre moom wóoru comme guerre yàlla nañ ci yàlla musal dafa fees sax moo gën mu ngi toog yooyu gën <laughs> bu ma leeree ni su ma di ma jox cent mille bi de moo ma gënal nga ma nga jox ma waaye bu ma lee bu ma leeroon moom dix mille bi laay encaissé del moo gën neen bës bu bon yàlla nañ ci yàlla musal bës bu baax moo baax respect moo ma gënal argent moom boo ma koy jox danga ma koy jox ci respect jox ma ko ci dignité jox ma ko ci valeur nànk nga ma koy jox waaye ba ma koy sëllax ak yii di ma jéem ak ñàngal ak yooyu moom wala ay sànneeg yii moom bëgguma da ma koy jox ci respect caprice bi moom baax na moom caprice bi moo mel ni tipa Balla Gaye 2 ah wax ni yow Balla ci làmb moo ci daax a bi laay jël moo may daaneel moo may dundal non <laughs> kii day rek loolu yow Youssou Ndour moom ko ci boole Youssou Ndour kooku crème leen la Pape Diouf Pape Diouf moom léegi après da ngay Youssou Ndour après Pape Diouf noonu la rek nañ ko nañ ko teg ci yoon rek respectante ko noonu rek bu ko defee lépp ne wolof wolof la wolof wolof wolof laa di fi laa juddoo fi laa yaru waaw damay Yeah, I can speak English very well. If you want to talk to me English, no, let's talk. Oh, today is good. Everything is good. You know, I do too, like, I'm, i do a lot, you know me. I go to Gejawai, to my family over there, you know. After I finish there, I go to Matar's Hotel, you know, Almadi, you know. I do a lot of things today, you know. It's too hard today, you know. Right now, I'm here chill with tough stuff, you know, make my things fit together, you know. And after go to sleep, you know. What's up? Have you more dark? boo ko miinee ragaloo ko moom moo dàq moom moo a confortable daal bu ma gisee lu ma jënd ko jënd ko bu ma gisee lu ma jaay jaay ko bu bon ma fay bu dee lu baax ma taal Balla Gaye 2 mooy mooy magu guy gi mooy kilifaam ci làmb te ñoom ñaar ñoo ko géejawaay léegi te Balla guy gi ci ginnaawam lay topp moo tax danga naan Balla ndax guy gi boo ko laajoon yow ak Balla danaan Balla moo tax kon Balla taf taf